soo bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39 ma sakar daa fàtte mbenaan mi mbenaan mi moom nee naa ko ba wax naa ko ba taay dee dee ko na koy tànn baaxu si jur baaxu si nit da lay nelaw loo da lay taayelloo ah waaye moom xel mi naqar loo ko wax mu fàtte ko rek waaw. yow lii waxoon naa la su ma ñëwee dinaa ko tànn. ah waaye jur yi dañoo war a lekk te war mënuñoo xaar. ah nga bàyyi rek ba ma ñëw. déedéet mbenaan mii moom. bëgguma di leen ko jox ndax di leen di nelawloo leen taayaloo baaxul si nit baaxul si jur. waaw bàyyi. Ah. baax na baax na xam nga man sax loolu daf may gënal. ba ma fa jógee sax. Hmm. damaa jaaraale kër sagar. waa tund wi yëpp nag naan ma foo nekkoon foo nekkoon nekk te lëlu baaxul de bàyyi. ah man de la ma lay wax rek ndax lëlu bu bari daf la yokki xalaat rek te xalaat yu ëpp si bopp day def loo nit aayu mu la ko boo doxee. boo demee sa kër xarit waxtaan ba ba li nekkoon sa bopp deñ mm-hmm. nga ñëwaat ndax loolu bi man it maa la gënoon bañ ndax ba nga nekk si néeg bi la nangu woo lekk nangu woo naan toggoo fi toggoo fi togg gu neex yàqoo fi yàq gu neex amoon naa lu ma metti lool. ginnaaw yaa ngi génnaat ah damay sant yàlla bu baax damay sant ndax loolu bi moom neexu ma wax dëgg yàlla am neexu ma woon waaye nag loo gis rek day jeex kenn ku dem nga biddiw. waaye kat baay xam nga ne mos man mii neexuma ma woon. ndaxte nag magum dëkk lii mu def sama digganteeg birima neexuma benn yoon waa man sax birima démb ba léegi dama koo gisul fan la dem. waaw moom mi maa ko fàtte woon nag da ngaa génnoon mu ne boo ñëwee. Mhm. ma tàggul la dafa dem ngéewul dafa am benn xaritam bu mu seeti foofu waaye yaakaar naa si kanam tuuti di ko gis. incha allah waaw xanaa kon daa dem seeti ji. Euh, latir ah, ndax ngéewul moom bu ko waxee rek latire fa nekk ndax ñoo ko nekk sëlal waaw mu ngoog noonu loolu daal <laughs> ah sama xel daal dal na moom xanaa nag bëgg nga nag tey waaw moom tey moom tey moom sama sama xol moom sedd na lool sagara doon defal nii gis nga ah <laughs> loolu baax na ah, tey moom tey moom bëgg bëgg naa laaxu sanqal bu baax laaxu sànqal bu baax nga nga nga nga jëm daqaar ju doy mhm. nga siifal ma ci incha allah jërëjëf loo bëgg rek loolu laa bëgg baax na xaaral ma àgg ci biir ndax bàyyi nag yow yaay samay gët ah saa yu ma gëstoo ma waaw xam naa daal ab taal moom bu tee tàkk ah yàlla baax na yow yaay sama doom man tamit yaay samay gëdd de di nga amiin baay foo jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu baay tey saa baay jooyu ma lenn lu dul saa baay bi lépp lu ma naqari daf koy naqari lépp lu ma neex rek daf koy neex yàlla na la fi yàlla yàggal baay yàggal fi nag biri ma sama soppe boobu te bëgg ko lool waa Ndella Yacine démb de kër gi tuuti mu tàkk. yow la mot xam nga li ma la wax lu tax dem kër la si tàggu woo ma yow yaa gën a xam ne su ma demee kër Latir ñëw di la tàggu danga may aay te sama xel bi daa nekkoon ci moom lool ma ñàkk dem foofu yow. Ah, nga dem daal man bàyyee ma coow li ma àngu ko. Mm. Yaasin Penda dangaa dem rekk mu dugg sama néeg ni ma ana mm. la Yaasin fan la dem dugg naa néegam fekkuma ko fa. daf ma ko wax rek ma pëccatiku damaa tiit ba ne ko Ndella Yacine moo ngi sama nekk ah. di nelaw léegi bu fekkoon aw ma xel boobu wala moom mu dem dugg seen sama néeg di la xool fan la ñu jëmati waaye nag waaye nag dara saa ndey xel mi màccul noonu de saa bàyyi ko gën a muus baax na si moom yoo xam ne man su ma demul woon foofu damay dof yaa gën a xam kon demaat nga nii ba ñëw. <laughs> sama xol bi daa sedd nii soo may rek. Latir lu mu wax. xam su ma ko bu waxulee sax su ma ko gisee sama xol bi day sedd. da yoonu dem a ngi noonu. ah <laughs> bàyyi rek ma dem may sàcc di dem waaw ñaam la nëbbal de moom. dimbali ma rek yow tamit nag. man damaa sonn ci nëbb bi bis bu yàlla sàkk may nëbb nga may tëgg wëndeel di dem. léegi nag nee nga da am fit da dem te doo ma tàggu. yow tamit su ma la tàggu du ma bàyyi te man nag mun ma woon ñax ba ñu gis na tiir. bu coow ñëwee na ko àngu dégg na nga ko féete woo bul ma woo. man xam naa nag may jàppale. yow yaay sama doomu ndey sama lépp nga. loolu da may baab ñaar ñi fi nekk moom. buñ deful ni du duñ def ñu bëgg. ay dof lañ loolu ko ñemee wax <laughs> man de doxandeem laa. aw ma fit boobu hmm. moom. xanaa si ñoom waaye du si man de. man hmm. hmm. moom sama genn wàll. dama bañ mu metti de. di sama xarit di sama lépp moom ma la amul woon moom man maay toog dina defar da ngaa jaay sa ngeer <laughs> damay dem damay togg añ. damay togg añ rek. ma ñëw. foo jëmee eh, danga may yàqal. yow munoo togg munoo bale munoo fóot xam naa ne moom bis booy sëy ci Latir danga ma yóbbaale rek xoolal ñoom ñu bàyyi leen fii. <laughs> defee comme ni nga ko daan defee rek. maaleykum salaam. tey Birima. ah kii daa ma nuur ah, sama waa ji lii day bëgg naa ko ci góor. wallaahi ndeysaan. loolu daal warul toog na yàcc na yasar rek. waaw yàcc na yasar daal jigéen moo ko waaye sama tamit xam naa ne moom. ma tamit daan baax na de. wow gi du ko ëpp doole. waaw. sama fekkoon sama mag nii. ah ndeysaan te ah. maa la. non ah jëru ko de. Ah. man de li ñu naan sax euh, wooteeb yàlla moo gën wooteeb nit. waaw. sa kër laa jëm si woon nii. la fekkent ne fii baax na mën nañu ko fay waxtaanee. ah lii de moom dañ laa bëggoon àggal ah. dem. xam nga ah, sama nijaay ki mbiram rek. Ah, waaw loolu moom loolu moom am na solo moom sa nijaay moom. wallaahi xam naa ne moom moom. ah waaye sa nijaay nag mooy suñu nijaay waaye nag lii moom bu ma sañoon. waaw da nga koy teg nii ñu daal di waxtaan li ma fi indi. bisimilah. birima. nooru. li taxoon ma bëggoon a ñëw sa kër de lenn dog moo ko waral. Hmm. mooy nooru lañ bëgg fasal soxna kodd. waaw hmm. te jàppagun bis nag ma bëggoon nag bala ñoo jàpp benn bis mu ñëw waxtaan ci ak yow. wàllu. Mm-hmm. amati naa mbégte bu baax. Mm-hmm. sama xol sedd na ndax xibaar bii nga ma indil mm-hmm. xibaar dax ko ci samay nopp kon jërëjëf njukkal naa la. Birima. dañoo bokk lu rëy bokk ab lël. bokk benn bis bu ñu téegalandoo. kon yaakaar naa lépp loo xam ne yandu na si ñun. daa war a fanaan si yow ah waaye nag soo mi dafa am lu ci ñuul. lu ci ñuul ndax yow xam nga ne magum dëkk jaasi la. Mm-hmm. kenn du ko jiitu ci mbaram. Mm-hmm. ah ma buggoon nga gunge ñu ñu dem waxtaan ak moom bala ñoo jàpp benn bis. wàllu rafetlu naa say kàddu rafetlu yi say mm-hmm. waaye rek foofu. dinaa la gantal gàntal tuuti muy magum dëkk sama gët yi mënatuma koo teg ci moom ndax umpuliwoo lim ma fi defoon jamono ji ci ginnaaw yàggul dara jëf jooju moo tax xool bu àgg sax man mënatuma ko ci magum dëkk ma bëgg nag suma ma sama ngant loolu ngeen nangul ma ko rek te xam li waral birima li la magum dëgg def noonu mu la mettee nga am ci lu la naqari ñun ñi tamit loolu la ñu mettee ñu am ci lu ñu naqari waaye nag lañu bàyyi lépp ci loxo yàlla te xam ne yàlla dina leeral lépp gis nga sëy bu yàlla takk ca aras kenn mënu koo fànq ba du am bu yàlla ne yàgg yow yow ak kee da ngeen war a sëy kenn mënu ci dara da ngeen di sëy waaye nag sama sañoon tànk yi ma séq ba ñëw si dëkk bii nii nga séq waa tànk yi ñu ànd fee ñu dem seeti magum dëgg ak moom loolu daal doon na nekk lu ma gën a. wàllu bu ñu werante ñun kenn mësu ñoo xam ci ay werante su ma la gàntalee rek am na lu tax ma gàntal la te olof Njaay it day am lu muy wax nee na bulli du fàtte ñaar ñi mu ko kii ko jox mu lekk ak ki jël paaka dawal ci ak buleem jëf ji rek tax mootumaa jàkkaarloo ci ak magum dëkk waaye leneen loo xam ne yéen ngi koy man a yéen ñoo koy summandoo ñoo koy bàyyandoo incha allah rabbi waaye lii moom jéggal leen ma ko rek. ah man de naa la ci tegal gis nga xob bu ngelaw jiital ba mu na meng ci ab kan génn dootu ko yomb de ba tax na sama sañoon nga xool nooy toxale ak magum dëkk ndax magum dëkk am na doole te amul yërmaane si ñun kon nga def ndànk-ndànk ba am keroog la ngay gënal yaakaar naa moo fi sës man nag maa ngi yegwaat daara ja da ngaa baax rek <laughs> waaye magum dëkk moom hmm. war naa xam ne maa ngi ci moom. te bis mi ñëw incha allah rabbi daan daje. ah am na kàddu gu ma naan wax de nee naa leen magum dëgg doole du ko fi génne ay pexe kese moo ko fi génne te pexe yooyu nag bis buñ ko nasanoo ñun ñett xëj ñu si magum dëgg. mën ngaa toog nag sa naqar moo suñu naqar. jërëjëf jërëjëf mën ngaa toog. jërëjëf ma àggali lii rek. ñu dem ba kër ga nga yenn li ma li ma bàyyi ci dëkk bi dafa bari waaru mel nii ma ngi may xaar bal ma dem rek dóori ko. ah waaye baax na sama doomu jërëjëf. incha allah a jaay lu bëri waay. nee Code. naam baay. Latir bëggoon naa nga waxtaan ak moom. Mm-hmm. ndax fan yi yëpp. Mm-hmm. day lëlu rek. ba ñam yi nga xamee ne mooy sottee ci kër gi muy añ bi ak reer bi ak ndéego li saa bu ko ko yaayam joxee day mos tuuti rek daal di jóg mm. te xawma tekki ji lan moo ko waral manoon nag naa ci waxtaan ak yow ngir nga man cee waxtaan ak moom ba xam lu ko naqari dëgg la baay Latiir de nim la jaaxale noonu la ma jaaxale ndax man Latiir ma lan moo ko war a metti ndax lëloom bii ngay wax man mii la gën a jaaxal ndax foo ko fekk day beru loolu nag jaaxal na ma lool man mii jaaxal na ma de ah man de saa bopp da ciy ubu bopp ndayamit da ciy ubu tama xam ne seenu diggante ratax na ba yegg ci lool moo waraloon noon naa ci waxtaan ak yow ba xam da nga ci man dara am déet ndax sébb bu tëtàkk kat wet gu ne les koy taale ah baay Latir mii de nii mu fasee kanamam gii ndax ñime naa koo woo di waxtaan ak moom Latir de kanamam gii da koo fas lool. ba man ah. sax ñimeetuma ko. lu dee moom saa bu nëbee dana xeeñ buñ ko suulul. dëgg la de. ah nan ni tekk di ko seetaan rek. ah na xam naa ne. Mhm. ah jàngoor de danga koy wax. dëgg la de. su ko defee mu mën a faju mhm. waaye soo ko nëbbee. Mhm. ah mën na laa fàdde mbaa bu la faatuti sonal la loolu de dëgg la ah xanaa ma ji ma waxtaan ak moom rek ah boo ko defoon day mhm. mu baax mhm. ndax maa ngayam day mhm. am nan ci ak jaaxle lool dëgg la dinaa ci bàyyi xel baay dinaa ko gis waxtaan ak moom incha allah baax na kon kon maa nga la cay déglu baax na waa baay kon maa nga cay déglu. baax na incha allah mbaa yëg nga ni maa ngi lay ñaanal fu ma toll. ah billaay ñaan yi na. ah maa ngi lay ñaanal de. ndax yow day. Mhm. keroog ba nga duggee ci kër gi ba fii mu nu koy waxee. Mhm. musoo nekk ci lenn lu ma la yaaye. dëgg la. te gis naa bu baax. Mhm. sa bàjjen bii ci kër gi. Mm-hmm. nii nga taxawee ci ci moom mm-hmm. ndax lu mu yëkkati nga ne ko tegal maa ko war a def dëgg la waaye nag mm-hmm. ku baax moom jërte ñaanal yaay ñaanal sa bopp dëgg la baax nag dafa jafe képp ku sa bopp jëm kaw say tànk jëm suuf tàmbali woon nga xag mbaax waaye sax ci rek a jafe dëgg la yal na la yàlla defal jàmm. amiin amiin waay. maa ngi la koy ñaanal de. amiin amiin. sama wéet. Mhm. ak sama wéetaliku. dëgg la dëgg la baay ñaani nag agsi na. ndax mag de loo yokk ci darajaam xam na ko. Mhm. waaye loo ci wàññi it xam nañ ko. dëgg la. xorom das koy cof. Mhm. waaye as gor das koy ngëb. dëgg de. te gis naa ni nga ma nga dëgg la baay nga be ko sama soxna sii ne ci kër gi. dëgg la. te la neexoon nga ne du sama ndey du sama baay. dëgg la. waaye da nga am lu baax de xaw ma dinaa fekke xaw ma du ma di nga am lu baax. dëgg la baay. ah maa ngi la koy ñaanal de moom. amiin yal na yàlla nangu ñaani damaa def li ma war rek ndax sama ndey jee fee mu tëdd bu ma nekkoon ak moom ci kër koy liggéeyal. suba ak ngoon kon bu ma gisatul sama yaaja su ma leen gisee ne sa kër gi mel na ni maa ngi sama kër yaay jàppee ngeen ma ni ngeen jàppee la tiir mhm. te bu leen neexoon du ngeen ko def mënoon ngeen ne ab jirim laa tegoo leen ma dara lu diis ci kër gi li ma war a def rek laa def mel na ni sama yaay ak sama baay laay liggéeyal loola de mooy li nu war yaakaar naa magum dëkk maa ngi lay nuyu. fay nañ la bu baax. mbaa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah ñoo ngi sant. yaakaar. naa magum dëkk. biig de bi nga yebalee ci man. Hmm. ngir ma wuy si la. maanaam nag naa teel a xëy ñëw. mbaa jàmm la. jërëjëf magum dëkk. ci njëlu gi ñu njëlu. jabeel nag dafay ñëwoon. wax naa ko tamit li ma waxoon nee naa ko nag na xam ne kodd doomi ngàtte lu mu yàgg-yàgg magum dëkk mën na koo jël si waaye nag daf waaye nag daf ma wax lu doy waar lu mel ni lan daf ma wax ci mbirum Ndella Yacine yaakaar naa magum dëkk ana lan la la ci jabel wax am na ci loo xam ne nag magum dëkk làmmiñ du ko laal mukk xaj na jaan ci suuf tànk ci suuf lu mu yàgg-yàgg rek mën nañoo gisee waaye daal jabeel wax na ma ci mbirum koddu doomi ngàtte wax naa ko ci waaye wax na ma lool ci mbirum Ndeela Yaasin moom itam waaye wax na ma lool ci mbirum Leela Yacine